lan ngay dénk koo xam ni day def bakkaar bi tuub mais seytaane daf koy mënaat. alhamdulilah rabbil alamin daal la ma koy yax mooy la ma waxoon sànq ci waxtaan bi rek mbokk man mii aman na maa la dàq def bàkkaar ñu bari ci ñun ñoo la dàq def bàkkaar waaye li am solo mooy yëg nga ni yaa ngi bàkkaar reconnaître boobu nga reconnaître ni yaa ngi def bàkkaar rek faveur la lan la war a def ci yow ci ay jàngat bi ci jiitu mooy dafa war a def ci yow nga dellu ci yàlla bu la seytaane coincé mukk ne la yaa ngi bàkkaar di tuub di bàkkaar di tuub léegi boo bàkkaaree yàlla day bañ déedéet waaye fekk sa xel mi ngi jëm ci bàkkaar seytaane ommat la sa bakkan ommat la góorgóorlu nga tuubaat dellu ci yàlla jàppul jullil jaamu yàlla gis nga dafa bokk ci julli njëriñ yi ci nekk mbaa yëg nga ni diggante waxtu bu nekk ak moroomam yàlla da ciy baal nit ki ay bàkkaaram fekk deful bàkkaar bu mag diggante julleeg julli julli suba soo ko jullee julli tisbaar diggante suba bi 6 di du matin ba 2 bàkkaar boo fi def bu dee bàkkaaru bët bàkkaaru xool bàkkaaru làmmiñ bàkkaaru nopp bàkkaaru tànk yépp yàlla nee na dala koy baal maalam tuxsal kabair feeg defoo bàkkaar yu mag yi juróom-ñaar yi muy bokkaale muy njabar di rey nit am nañu ci dugal njaaloo wala sax xas gor si jigéen na julli ba juróom-ñaar yoo jeex maalam tuxsal kabair feeg defoo kabiira moom kabiira moom julli du ko effacé rey nit julli du ko effacé njaaloo julli du ko effacé njabar julli du ko effacé bokkaale julli du ko effacé waaye yeneen bàkkaar yépp nag diggante julli ak julli da koy kafaar kazaalika diggante tisbaar ak tàkkusaan noonu diggante tàkkusaan timis noonu diggante timis gee noonu kon ay faveur ay buntu lala yàlla indil yonent bi nee na sallallahu alayhi bu kenn ci yéen amoon dex ci buntu këram chaque jour mu sang 5 fois ndax dina tilim ñu ne ko dedet mu ne julli jurom noonu la mel day raxas ay bakkar ci jëm doomu adam kazalik digënté aljuma ak aljuma noonu lay mel yàlla dalay baal bakkar yoy kon bakkar bi nga def mbokk tuubal jullil ay ràkka delul ci yàlla del tudd yàlla insha allah rabbi yàlla alhamdulillah alhamdulillah barakallahu fikum wa ahsana ilaykum Les xamna dañuy ci question bi ci des ñu comme waxtu bi daf ñu inshallah <laughs> waaw kon kon baax na oustaz mbokk bi dafa ni jamono ñu toll la rentrée des classes bon léegi néna lan ngay euh élèves étudiants yi ak euh, parents yi dal ak importance alamin jàng bokk na ci ay njëriñam mooy tax ñu jëriñoo suñu àdduna jàng daanaka suñu avenir ci la nekk kon ñi am ay doom ñu toll ci jàng nañ leen préparer ñu dem jàngi waaye préparer leen ñu dem jàngi li mu laaj dafa bari nekkul rek yóbbu nga ko école inscrire nga ko rek jeex na déedéet gis nga bi nga ko jëlee yóbbu ko école inscrire ko mooy defal nga ko premier pas réussite am ci pas boobu mooy ci yow la nekk ci sa loxo ci biir kër gi di ko controle demam di contrôler ñëwam di contrôler ndax mi ngi jàng ay leçon ndax mi ngi jaar ci yoon yii boo ko ko defalee bu dee préscolaire la nekk mu dem ba jeexal ñëw élémentaire dem ba jeexal noonu lay toppee nga di ko toppatoo xale mook gajj ñooyam wala nga ni mook gàncax ñooyam gàncax ci tool ci tool bu am ay ñax ñax yi jàppal ni mooy liy yàq dundu àdduna kon boo amee tool nga am gàncax nga bay gerte wala bisaab wala leneen am na yeneen ñax yu ñëw te bokkul ci nawet bee leen di indi ñooñu ñooy agresseurs yi ñooy yàqkat yi kon il faut nga yor sa daabaa di xoos yooyu di ko dindi mooy sa doom bu ko libéré mu dem jàngi rek nga ne libre nga mais danga koy topp di ko toppatoo ba ëllëg mu am avenir am waaye góorgóorlul même bu dee jàngi tubaab jàngi leneen fexeel ba côté diineem na koy jàngale da koy dimbale incha allah étudiants yi élèves yu mag yi yëpp maa ngi leen di dénk seen réussite ëllëg mi ngi ci seen njàng te dugg nañ ci phase boo xamante ni ku jàng ëllëg dangay ngay jëriñu ñu ngi jëm ci yoon boo xam ne incha allah ku bëgg a jëriñu na jàng moo tax ndaw day jàng ndaw na góor góor lu ci jàng même boo nekkee ci sport jàngal xam nga ni moo sport bu ko jàng gungee day gën a yomb ci yow ñaata heure la ñuy jël fii wala ay pratiquant yóbbu leen bitim réew ñu nekk fa di jàngaat làkku dëkk ba lan moo ko waral mooy jànguñu woon suñu jàngoon dafay yomb dañu ñëw rek daal di bokk kon loolu lay joxe ci gàttal incha allah ci conseil mbokk bii moom nee na euh, yowmul jumaa yéen salaasam nee na day tere euh, nit ki di wax wala sax nit di wax nga di ko noppil sax mën na yàq sa juma léegi nag nee na xanaa caméraman yi ñoom dañ si exception lañ si wala déedéet duñ ci exception xam la waaye la toute façon mooy dafa am benn bunt bu borom xam-xam yi di faral di indi moom mooy léeg-léeg jamono moo toll foo xam ne dafay laaj loo xam ne du nekk lu mën a ñàkk moo tax loolu di am léeg-léeg su fekkoon ni mooy am na nit ki préparé caméra yi def ci jàkka ji ba nga xam ne da koy mën a jël normal loolu mooy li gën mais su amul lii nag li fi sës la incha allah te daruura la bismillah kon bu ñuy mujjee mooy mbokk bi li muy laajte mooy. Euh, ndax dagan na góor di euh, di di léttu ndax loolu dagan na ci góor daal waaw léttu dagan rasta moom awma attem rasta moom caaxaan la loolu la ko yonent bi tuddee jubaab la ko tuddee mais am ma jëmmi léttu traité nii yonent bi da ko def borom xam-xam yi dañuy wax ne ci urfu lay dugg lay dugg ci urfu bu duggee ci urfu mooy mbaax ak yi dëkk ba bu fekkoon tey jii ci naar yeeg ñu demeen wala indien yi ñoom létt ci ñoom du indi dara mais ci ñun boo léttoo góor jigéen lañ lay jàppee kon baal xel ni yow nga xam ne ci ñun nga bokk bañ koo def moom moo gën mais mi def bi boo ko defee tam kenn du tëb ne la lii xaraam na amma jëmmi rasta nag amuluñ ko tegtal ba mu dalee kenn ci saxaaba yonente bi da ko ne zibaab salte salte salte su bi ne salte nag mënuloo set kon ñu góorgóorlu ci yu mel noonu te nag dafa bëriwut benn njëriñ nag yokku la tilimaki téeñ dong la lay def góor daal simple al nga nekk góor ñaareel bi mooy ña koy def xoolal ci ban diine la ñu bokkoon kon yow bul ñëw jël lu mel noonu man damay toog ba ci yàgg damay dafa may yéem daf may yéem dafa nekk loo xamante ni nit ki lu mu war a bàyyi xel la insha allah rabbi maa ngi dellusiwaat ci wàllu caméra yi ak yu demee noonu gis nga jamono day toll nu muy doxee nañ koy bàyyi ni muy doxee léeg-léeg nit dina sikk loo xamante ni ëllëg mën na caa tàbbi tekkiwu ma ni nag dafay leeral li ma wax nii dafa am kenn ci ustaas yi koo xamante ni bu ko caméra tiimoon day kaas rek waaye tey moo dàq caméra ci nit ñi lan moo tax mooy gis nga fi nga nekk di xutba du yow mi toog ci jumaa ji rek yaay jëriñu de ñaata ñoo nekk bitim réew di jëriñu léegi yow pour loolu am da nga leen ko bëgg xañ ñoom kon loolu islam mooy doxee noo xam léeg dama am yu ñu tuddee ay xadaaya yoo xamante ne nawaazil la day bees bu beesee nag dañ koy utal ay àtte incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu